dalen ak jamo mbokk internet yi safo di setan Buzz mtv tiant cant ak ngeureum ñen la len si tewlu bi ngeen di tewlu sen bi eh, ñin koy faral di defes ak jangat yu am solo yi nga xamne dañ koy faral di def candidat yi nga xamne nak nag kale woon nañ len ci walum parrainage set yi ki di president Macky Sall mom president Macky Sall nag daa deen leen tonto lolou lepp après dinañ ci dekk gën ko yaatal mom mi nga xamne nak modi Cheikh Bamba Dièye da dinay xamle que nak ki di president Macky Sall amna na bu baax baax que ki di basirou Diomaye fay dinañ ko génne mu daal di defe ay campagne am comme ay moromam lu ne mel Cheikh Bamba Dièye euh, moo ko daal di xamle information yi nga xam ne daal dinañ koy jot euh, ñoom tamit bi ñu génnee wax nañ ne la nga xam ne jooti nañ ko fa bokk na si bëgg ba Bassirou Diomaye Faye bokk si élection yi loolu nag lépp dinañ si dikk ak ay jàngat ana lan moo ko waral dëgg dëgg dëgg dëgg mbir mi lan la ba tax bi ñu génnee seen première déclaration wala li gëna a fës si wax moy kané nak nañu fexe ba Bassirou Diomaye Fay génn ci kasso bi daal di bokk si campagne yi loolu yëpp dinañ ci dik ak ay jàngat ñu dégtal leen yi nga xamné nak def nañ ko ci jangat yi am solo yi nga xamné nak nag daal nañ ko ci def. sama gaay gis nga ñi ay tappalakat yu dajalé won def seen escroquerie génn bëgg a askan wi seen dem gi ñu bëgg ko légitimer ay wax nañ pour ñu Bassirou Diomaye Fay loi mo wax ñu bayiko ko bu ñuy yàpp lañ fa defi woon nañ ko wax yaa ngi dégg xam nañ ne ay dem foofu di tappale loi bi moo dal seen kaw nañ ko accepté mais au fait ñu ñëw dañoo dem ba dañoo xam Sénégalais yi xam nañ ne buñ génnee di wax seen i waxi tappale nit ñi mer nañ leen ñëw bëgg ñoo neexalee naan woy nee nañ président sax nee na dina bàyyi Bassirou Diomaye Faye yooyu may waxi lan nit ñi yëpp Bassirou Diomaye bu leen neexee nañ ko bàyyi foofu waaw buñ ko bàyyi sax ñu bàyyi campagne ko gañ a gañ bi buñ ñu yëpp ay ngóone saaliw mii vrai défaillant la quoi waaw <laughs> Basirou non Basirou Diomaye Faye moom ñu analyste yu mag yëpp ñoom dañoo wax ne buñ ko bàyyi ci kaso bi sax moo gën a dangereux ci campagne parce que li nga xamante ne bii ñoom dañoo neutre si ñun ñëw ci wàllum politique sax mën nañ ci mer ba léegi ko moo def état bi fi toll amul benn solution bu mu mën a def ci élection yi du ay dàq élection xoofu maa ñàpp yi dañoo mën a dàq élection en même temps nañu focus xam ne ñun affaire bu ndam li mu ci loxoy patriote di ba pare fi ñu toll ni bëri woo ci bartal la puus bi dem puus mu dem mënuñ ci dara Macky Sall sax leer na man daje gi mu daje xufuma ñàpp bi wax dëgg yàlla leer na man am na ci kes ndax lii moom bu journal yi xëy xamul li ñu bind laa xamul waaw xaar nag ndeysaan ñu ci tëri lu am solo suba ñoom ñu ngi ko doon xaar xam naan waaye xam naa ne daal vraiment daal pouvoir bu jeex jeex na lu jeex daal jeex na avant na c'est fini foofu la affaire yi toll. ñii dañ ñoo yab quoi les daal rek lañ waxoon PDS lan lay wuti foofu lan la fay wuti PDS seen kaa ak kaaw gaa yi nekkul benn. te bokkutoon ci audience bi mais la fekk ñu bëgg ñu dëbbu linjaa rek bëgg leen dem gi ñu bëgg ko légitimer rek xoolal ba ngeen li njëkk wax rek waxtaan nañ pour ñu bàyyi Bassirou Diomaye fay Bassirou Diomaye Faye loi mu ne nañ ko baax liñ def ñoom nañ ko accepter seen i liñ def nañ ko assumer seen responsabilité mais fan ngeen mës a gisee présidentielle boo xam ne kuñ kale parrainage rek nga ne man damay jàll par force xanaa sax ñi ñu éliminé bu leen neexoon ñu ne kon kaaf kaay dugalaat ñu parce que ñun nit ñi ñu génne jaarul ci yoon loolu mooy lan. ñépp mën nañoo jàll par exemple lan moo tax ñu teg ko fi pour ñu mën a pour pour pour Macky Sall moo doon wax nekkoon na golo gu jug nekk président mais léegi golo xoolal ñi nekkoon fii yëpp quinze boo xoolee quinze personnes yi mën nga wax ne dix yëpp daanaka ay ay ay ay ministère Macky Sall lañ woon léegi ñoo ñu bëgg taxawaat ñëw di ñu gëmloo ne ñoom ñooy bëgg a décider ci bopp askan wi bëgg a neexale askan wi naan ay wax nañ ma Macky Sall mu bàyyi Bassirou Diomaye Faye kan ma leen fa tuddloo Bassirou Diomaye Faye seen xalaat bi nañ ko rejeté man ci lool la and sen yefi tapale yi buñ fi def tapale nañ ko def mais mais nañ ci genn Bassirou Diomaye Faye xam nga ma lo mënul accepter kara manam la fait que jess bi Bassirou Diomaye fay ñoom ñi bëgg koo légitimer ne dañ leen wara a bàyyi ñi jall lool la mënu nangu quoi bokkuñu ay ka ñoom dañoo war a dem régler sen problème régler sen problème mais ñoom bëgg a jël Bassirou Diomaye fay ak sen ka wa ñi ñi pour lan ñu leen di bàyyi ñi jall pour lan ñetti point lañu waxtaanee ñu ni benn bi moy yi baye Bassirou jamaay fe benen bi moy ñom candidat yi nga xam dañ leen kala ñi baye lañu jall jàll bi moy Karim Wade tamit ñu xolaat kaam mais lolu lolu lolu lolu sa askan wi la mais élection kana kon bu leen neexee ñi jëli won fils ta amuñ parrainage bu leen neexee ñom ñoo dañuy bokk ay yow ñii bu ñuy yop kara Bassirou lolu mom ñom ñoo la gëna xam lolu c'est impossible lolu non lu conseil constitutionnel xas valide mënuñ ci dara xam nga loolu ñoom président man li may faral di wax rek ku ne daa ko jot lu mu jot sànni leen mais nag gis nga pouvoir euh, bi fi toll nii ñoom affaire diabolisation moo leen des maanaam di propagande di fay ay journaux ñuy ngal-ngali ko dégg bëccëg wala nekk ci xam nga réseaux sociaux yi nag boo xoolee vraiment neexul ba neexul mais dañoo xaw a état bi parce que réseaux sociaux yi boo ko ubbee doo ci fekk loolu patriote yi kese xam nga loolu dafa metti quoi dafa metti ci ñoom loolu moo tax fi mu toll nii. vraiment effort bu ñuy def pour jaxase xel ni ñu ko def mais nak euh, day fekk ne lepp lu ñuy waaj rek nit ñi xam nañ ko lool mo leen jëk tromper d'abord Macky Sall mom mo la gëna a xam ne moom daje gi mu daje xofuma ñap am na ci kàcce gu reuy parce que li wax dëgg Yalla do xam ne muy niru comme buruk soobu mu forox non kara man bar man dama waru ci Yalla man bu ma gisee dal léegi la ko gi dégg dara islam di wax naan waaw waxtane na ñetti ponku léegi daal nee nañ ñu ngi xool alaaji Macky Sall ma man daal man sama xol bi damay bëgg a man damay maa war a maa war a dee wala nu mu war a demee nii mais ñoom Abdourahmane Diouf ñii ñooñu doon wax ci élection législative yu ko ne la loi c'est la loi bu fekkee dañ fi teg loi conseil constitutionnel gi génn liste provisoire ñu bind ko lettre nga xam ne jamono boobu sax mënoon na ñëw jéem a xool nuñ ko defaree ñu dem ba génne liste définitive yi ñu ne ñii ñooy bokk ñii duñu bokk léegi bu dee ay quelques kuñ génn rek neexul la man nga dem palais ñaan audience Macky Sall dugalaat mais loi yi ñu jotee kon amatul njëriñ mais li may bañ mooy ñi légitimer ko génn Bassirou Diomaye fay quoi pees boobu laay bañ ñi daanu ci ba ñu accepté loolu Bassirou Diomaye fay day génn force A ou par B day génn dem pale wala nga bàyyi ko mu dem campagne Macky mooy choisir waaw. Macky nag kàddoom compté du lu bëri de compté du lu bëri de loolu nag Sénégal yi nag dañ ko war a xam bu ñu waxante dëgg te yàlla tax vraiment Macky ku ko ku ko jege di ko conseil xam nga loo ko war a conseil li dese a kas nii muy weer wi ko dese mu jëm cee rafetal maanaam jëm cee rafetal ji ma oyofal duma yi koy xaar moog ko këram man loolu laay conseil Macky Sall waaye gis na ne lu mu gën a def fii day gën dugal boppam rek day gën a taxal duma koy xaar moog waa këram daf daf cee war a oyofal as néew as lëf. loolu lu koy conseil lu nga ko war a conseil Kara gis nga Macky mii man damaa am sax benn xalaat ki nga PDS bi jàllul nii Macky Sall loolu daf ko naqari affaire bi daf ko rëcci barki yàlla man gëm naa ne véritable véritable candidat wu Macky Karim la lii am nii daf leen rëcc te bëggu ko dabaatal bëggu ko légitimer mooy ku nekk am nga sa problème kon nañ rek la ñun ñëpp suñu problème te problème yi du benn problème yi du benn de ñii nii ñëpp xam nañ Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko ak tous les détenus politiques yi nekk ci position bi leen fa teg du yoon te mosoo dégg waa PDS taxaw kaas ko mosoo dégg waa PDS taxaw kaas ko la fekk tey ay ñoom Alioune Sarr yi doomu xaraam yi daje pour tudd fa Bassirou Diomaye Faye mooy xam na ne ñoom am nañ problème te seen problème mënuñu koo régler te mënuñoo te régler wàlluñ bu Diomaye moo tax ñu bëgg liciter seen bos loolu waroon leen ko waruñ leen ko may ñii ay doomu xaraam lañ dañuy dañuy diil sëñ kaw lañ bëgg a jaar te loolu waruñu ko nangu te des dil lu mu am lum lu mu yàqu dil moo ko yàqule est-ce ñun war nañoo nangul war nañoo accepte maanaam système bi heure bu ñu demee ba war koo jàpp war koo tër rek ay doomu xaraam daje waxtaanaat pour sauver sauver système bi bëgg a jaaral suñ kaw ñun waruñ ko nangu wallaay duñ ko accepter